on n'est pas d'accord ci yenn yi ngay doxalee. Mm. Médina lu tax ñu Bamba Fall perte ko alors que Médina quand Bamba Fall était seul ak sa coalition ci euh, ànd ak Khalifa Babacar Sall bi mm. njëkk a gagné. Mm. de ministres étaient devant lui. on avait les Seydou Gueye euh, euh, Messi Cheikh Ahmed Ba. kii Cheikh Ahmed Tidiane Ba. waaw ak yeneen i ministres mais ba ci l'ancien ministre. Euh, bi bi nekk après FAO euh, comment il s'appelle encore ça va me revenir Papa Abdoulaye Seck. ñu dénkoon agriculture waa Médina la. Mm. amul ku xeexul Bamba Fall ñoom ñëpp moom en tant que maire daaneel leen ci ay nga dema ci ay élection waa yow sa kër di waa kër Khalifa Sall ne duñ la teg pour nga nekk suñ tête de liste mu leeral duñ la teg nga bàyyi leen dem ci gëm sa bopp donc tu as utilisé l'appareil mm. gëm sa bopp pour ñu fal la falaat la. ci biir Medina. Mm. loolu yow nag nga jël yooyu yëpp nag ba nga pare. Mm. nga leen man maa leen mën yéen ñëpp waaye damay tëdd ngeen jaar sama kaw. est-ce que Bamba foofu naaguwul c'est-à-dire dafa jàpp ne peut-être bu demee. Euh, dafa am mbooloo bu nga xam ko dafa dafa fidèle dañ koy topp. dafa naagu alors que ni Sénégalais maintenant dañoo décidé wu euh, transhumance. moom léegi moom dañ koy sanctionné Sénégalais euh, boo doon xool social anthropologue il te dira que c'est difficile de cerner le Sénégalais sa façon de voter très difficile. parce que mën nga voter selon waa Birahim de Mouride la am na ñu votel Pape Djibril Fall parce que Mouride la. waaw kii mu wax ma lu baax ak lu bon xaw ma sax projet am koy votel ndax daf nga gis ko xam ne kii lii mu wax nii lii gis naa ci bopp naa ko votel nga gis koo xam ne naan man coalition bi xaw ma leen votel leen pour lan du ma leen votel comme mënuma votel diw kii xaw ma ko kii est-ce ma votel kële parce que sama. mbokk bi ma dandal ñaanal ñoom lay votal donc xam kan ngay votal. dëgg la am na ñoo xam dañuy voté ba génn nga laaj ñu ko votal ñu ne man daal kee ku <laughs> kañ ma waxoon ma voté kooku laa voté. am na yenn tu parlais de maître Abdoulaye tout à mm. àll yi boo demee xam nañ lay wax kii bi am mbokk bi parce que moom la ñu xam ci Abdoulaye Wade. Mm. l'épi de maïs. mbokk bi fi mu nekk rek man dugal ma carte boobu laay jël. Mm. bu ñu xoolee du ñu xool Pape Diop du ñu xool photo Macky Sall parce que duñ ko gis duñu gis photo xam lu ñu gis. Mm. mbokk mi la ñuy gis dem voté ji. Mm. donc le vote sénégalais on peut pas se à cent pour cent sur ce vote. au fur et nag dañuy dem mu am ñoo xam ne dañuy voté par conviction par rapport ak liñ leen di jox comme programme. mais tey jaar programme nga dégg ci. élection man de ñaar ñaar kese laa gis ñu nga xam dañoo faussé seen contrat de législature muy bokk gis-gis ak ak Sénégal Aar am vraiment euh, contrat de législature bu am doole bu am maanaam loolu mais mel ni yi message bi nga xam ñoom ñu ngi ko doon véhiculer euh, comprendre luñ ko te pourtant ñoom bokk nañ ci coalition yi nga xamante ñoom rek ñoo respecté li nga xamante ni euh, mooy charte yi ñu tëraloon ngir dem ci campagne yi. ñooñu yeneen coalition yi wala ñëpp ñeneen opposition bi moo nekkoon seen combat. non à un solo ngeen ma joxee solo ngeen fexe ba Macky Sall am majorité assemblée nationale loolu mooy ma ngeen ko nga dem sax mi nga xamante ni mom moom moom sa moom sa Bougane sax noonu la doon pëtaxloo moom ci élection waaw man Bougane sax man bëgg na yow grand Birame bëgg naa nga taxaw foofu Bougane campagne man bëgg naa xam la moo ci eh, yoonam moom ci campagne yow koo xamante ni yow sa liste bokkul bokkaanul pourquoi Bougane a tal ay essence di sillonné di jàppale ngeen ne alors que moom ba mu duggee ci waa yeewi dafa dugg génn atal boppam je suis sa bopp personnellement du tout. sama conviction boobu. Mhm. mais chapeau à Bougane et la coalition Gëm Sa Bopp. chaque jour nag ma critiqué leen dañuy dem ba dinañ ma naan <laughs> doo wax ci Bougane. waaw Gëm dañoo sopp ñoom parce que loo xam te yoon nekk man dañ ma naan yow doo wax ci Bougane parce que su ma moom damay wax li ma ci xalaat yenn saa du neex mais li tax ma ni chapeau. il mënoon na toog xaalisam boobu mu dugal ci ay oto ak ay essence ak yeneen toog këram dund ko ak njabootam xappi parce que bokku ci élection est-ce que xaw regretter un tout petit peu le fait que moom fi may terminer dafa dugg ci yow génn na gis ni yow mi ngi buzz non c'est que euh, dans cette histoire il y avait deux choses soit tu es avec nous ou tu es contre nous bu ko neexoon neutre te kenn du ko ne lu tax nga neutre mais il a pris sur lui d'accompagner même des leaders de l'opposition de Yewwi et de Wallu sur le terrain politique dend ak ñoom assumer ànd ak ñoom pour faire passer le message moo nekkoon celui bi mu jàpp ni c'est le message du peuple bugguñu troisième candidature je l'ai vu dañoo rombante may dem Touba di dem Daaru Muxti muy def caravane ànd ci ak euh, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly Bara Dolly moo ma gis sax tàllal ma loxo ne ko Birahima ngi nee di dem xaw moon si programme am lijjanteewu ma programme am on travaille ensemble c'est mon patron comme on dit il sur le plan politique sequñu absolument rien du tout parce que bokkuñu sax ay conviction ay conviction effectivement mais il parce que bu nit defee lu baax da nga naan lii lu baax la mais je man jàpp naa ni ce qu'il a fait en participant à ces ces ces législatives à ces élections dans la campagne il l'a pas fait pour lui mais il l'a fait au nom de Sénégalais qui croient en lui. mais kon jàppoon itam bu desoon ca yeewi gën woon yomb ci moom. sa gis-gis. tax mënu woon toog ci Yewwi. Mm. <clears throat> te tu verras que dans dans quelques mois Yewwi ci seen biir ñooy njëkk a tas te déjà prémisse am na yéenewu ma leen ñu tasan mais xam nga luy prémisse yi grand parti tey mën a wax Yewwi te boolewoo ci Malick Gakou. Mm. Malick Gakou fait partie des premiers frustrés et des plus grands frustrés de la coalition Yewwi Askan Wi. combien de gens de, du grand parti sont aujourd'hui députés yaakaar naa benn lañ xaw ma ñaar. non nekkuñu sax benn parce que fi ñu leen tegoon ci euh, investiture si liste nationale bi nga xam ne moom mooy. liste moom la ñu invalidé moom la ñu invalidé. Mhm. amu ci dara ñeneen ñoo xam ne Demba Ndiaye lañ judd am ci dara te pourtant il investi beaucoup dans peut-être benn satisfaction la ci am mooy moo ngemb Ahmed Aïdara. Mhm. à Guédiawaye que je félicite encore euh, c'est un confrère. ci mhm. métier bi comme Pape Djibril Fall. ñu ñafe ba am lu ñu am. mais frustration moo taxoon ba mu leer ko ni mënu fa toog ci yeewi ndax dina am choc des égos et ça s'est vu après l'histoire lui a donné raison ñaata nit ñoo jógee après ci yeewi askan wi ci entre bi ñuy teg investiture yi bëri na Moussa Diop ay diw ay diw ñoom ci bëri jóge nañ mm. ñu jëm assemblée nationale wabus du ñàkk sëñ Mansour entre autres mm-hmm. moom pratiquement wane fu mu bëggoon dem dem na fa mm. loolu itam yóbbaale wul ñëpp am na ñoo xam ne tey ils ont voté même contre lui ou contre sa coalition. su fekkee ne am na ñaari député ci biir yooyu. reste à prouver. Mm. mais ce qui est sûr il faut il fallait que ku ci nekk am sa taxawaay ñaari koy duñ bokk mbarka Bougane ci li ma jàngatee man il pense être au même pied d'égalité que Ousmane Sonko. Mm. et il veut prouver que li Sonko mën mun naa lu ko raw te même mieux moom li muy wax mooy man créer naa au moins lu nit mën teg loxo ne ni créé naa ay pa kii ngeen ma bëgg a jëndee wala kii ngeen jël teg ko fi dan la créé loo xamee ne mën na nañu ne defal na ko Sénégalais yi. waaye dafa am lu politique soxla mi code de popularité te loolu la ko Sonko ëppale. Euh, code de popularité nag waaw euh, yàlla moo la koy defal nag. d' accord sànq sa biir wax yaa ngi doon wax affaire transhumance ma bëgg ñu taxaw foofu tuuti parce que tamit actualité la toujours ak Pape Diop bi nga ay ay Pape.